waxtaan bi kum daam mbooj jomaay fay fa koo fal ayda mbooj président jomaay fay fa koo fal capitaine Touré président jomaay fay fa koo fal Habib Sy président jomaay fay fa koo fal ba tax Dakar presse yéen kaay ne président jomaay fay kay ma ngay wéy di fal hay jege ñaaleem regard ne faaleen di wax kenn ku nekk lam la fal aa seet nataal daa mbóoj fa koo fal mu jiite société bi ñuy wax sojib source a na ko ayda mbóoj moom fa koo fal mu jiite deer habib si pca ca Senelec Toussaint Manga fa koo fal mu jiite lonaas péew mi ñuy carte ci fas yi daw ak yeneen yi mel capitaine Touré moom fa koo fal mu jiite police Macky yi asp les se ko yéen a kaay ne gaa ñi mu toll ni fa ñuy neexal seeni alliés ñi leen doon jàppale ci politique ñoom la ñuy neexal faa seetlu nag na juróom benn soxna la ñu fal ci fanweeri directeur sénéraux ak benn ñeenti rek tamit la ñu fal ci ñaar fukk ak benn secrétaire général yi gp a national ci la gaa yi nekk Sud Quotidien ne bala bi président Diomaye Faye yoroon ci campagne bi élection yi xam nga fa falu di bale gaa yi di fomp di dàq ba léegi nag mbale moomu ci la nekk de ma ngay kajji rek di dàq l'observateur na ko li retaan kay mooy fa dàq dàq ba dàq directeur général boo xam ne kooku bañ ko wàcceeg léegi kenn xamut kan la la ko Macky wàccee woon léegi ko yéen a kaay na gaa kay fa njuum njuum lu mag Souleymane Soumaré la a mooy moom it fa fori new Sud Quotidien na ko faala ci yokkal docteur Macoumba Diouf maire bu Latmingué fori na new moom itamit de fañ koo dàq ca horticulture ba mu jiite woon naka noona Zahra Iyane Thiam moom it fa fori ko dàq ñoom ñëpp na leen fa ngeen a fàttee Marème moom it fal nañ ko poste bu bees naka noona maître Babacar Ndiaye te mooy yéen kaay ne Yoro Moussa Diallo mooy agent judiciaire de l'État boobu yéen koy fàttu ci mbiru Ousmane Sonko yi moom it jomaa ak Sonko ci wote yi fi mu toll ñoom la ñuy neexal di leen fal ay poste Le Soleil yéen a kaay ne yéen nag faa leen di tontu nit su fekkee fa ngay ut réew am ñoo ci ànd ak ngeen di xeex ba jot réew ma léegi yow ñi la doon xeex est-ce leen di bàyyi ca seen poste ya ñu continuer di la xeex déedéet léegi boo leen dàqee nag ba pare kan nga fa war a fal ki nga wóolu ki la doon jàppale ba nga jot si nguur gi nga xam ne yéen ñëpp bëgg a liggéey réew mi moo taxoon a fal am loo xam ne xel sax fa leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi mooy ne conseil des ministres démb ñi doon xaar nguur gu bees gi wàññi njëgu dund gi c'est ñu tëdd nelaw de ndax les ko yéen a nee na jomaay ak sonko ba léegi a jël ngir wàññi njëgu dund gi waaye jëlaguñ ko wal fajir yéen a kaay na ko voilà moom yéeneem ci wàññi njëgu dund gu cher gi ak fañ war a jaar loolu daal la wax waaye ba léegi nag wàññi amagu turbine yéen a kaay na ko fa caa yokku leeral suñ demee bay wàññi na xam nga yan la ñuy wàññi ceeb bi nga diwlin ak mburu point acti yéen a kaay ne ci atum 2012 Macky bi mu faloo daar daar rek fa wàññi njëg dund gi waaye nag ba mu ko wàññee commerçant yi fa ñoo bañoon ne duñu wàññi Moustapha Tall bokk ci ñiy dugal ceeb ci Sénégal di ko jaay ci informateur yéen a kaay na faa leen di wax leen na gis ngeen wàññi njëgu ceeb wàññi bi tax ñu naan wàññi carrément càmbar gi ci war liggéey bi mën naa dem fii ak ñaari at ah yow bu fekkee ceeb bi nga bëgg a wàññi bayoo ko ci sa réew mi fa nga koy a faxe ba Sénégal ñuy lekk ñun askan wi ñu di ko bayee ci suñu réew mii su boobaa fa ñuy lekk ba doyal wàññi njëg gi nu ñu neexee ba pare suñu neexee sax jaay bitim réew leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne biis yu rafet yu gaaw yi ñuy wax BRT xamal nañ lancement ndorteel seen ak daw ca biir ndakaaru askan wa ko fekkee nag fa ñoo kontaan ndax biis yi fa rafet jëwriñ ji dénk wàllu dem beeg dikk bi El Malick moo ko jiite woon naal na fa yeneen procès yi nga xam ne fas yéene nañ koo dugal ci wàllu dem beeg dikk bi lépp ngir ñoŋal ko Le Soleil yéene moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom tribune Pastef Ousmane Sonko ak Mélenchon mooy tubaab boobu dëkk France te ñëw fi fan yii seet si Ousmane Sonko ma nga xam ne fa leeral ne fa dalal tubaab bi en tant que njiital Pastef waaye dalalut ko en tant que premier ministre suuf su ànd ko waaw ñun dégg nañ li nga wax waaye faa lay xamal leen seen ànd boobu daal man faa gis ne ànd warta mën a nekk ndax Mélenchon moom fay jàppale góor jigéen yi yow Sonko fa ngay xeex mbiru góor jigéen ne kenn du ko fi daganal Sénégal bi nga nekkee opposant loolu nga doon wax kon seen ak ànd ak waxtaan góor jigéen moom seen gis-gis yi du benn de la mu ko mooy ne APR fa ñoo ngir jotaat ci nguur gi nanguwaat waat lii yéen a kaay dëggal ko na APR jóg nañ de info yéen a kaay na dajale waat nag seen ak mbooloo baas bi moo tax fa ñu bëgg amal tournée nationale ngir waxtaan ak militants yi ñaaxaat leen waaye xool mbuqi métti yi leen Pastef mbuqi ak coalition jomaay ba ñu fexe koo joyanti tournée ba nag Tamba lañ koy tàmbalee ak Kaffrine bés bi yéen a kaay ne Amadou Ba nag moom fa demoon seeti ji Moustapha Niass ak Aminata Mbengue Ndiaye yéen a kaay bi na xam nga lu mu bëggam fexe ba ndonnoog ak PS ñëw ca moom loolu la bëgg de lii yéen a kaay moom fa ñoo xamal na njiit réew bu Sénégal président Jomaay Faye ña ngi koy xaar ca réewum Nigéria ak Ghana le 16 ak le 17 mai bi wal fajir yéene kaay na ko réewum Sénégal nag fi mu toll ni hôpital yi fa ñoo manqué li ñuy wax oxygène bu la war a opérer ba ñuy def ca biir saal ba nga mun koo nokki wala ku nekk ci diggante dund ak dee ñu jël oxygène ba branchel ko ngir nga mën a nokki loolu fa manqué léegi li manqué wut Sénégal nag te moom rek moo waroon a manqué mooy accident yu bari turbine yéene kaay na ñeenti doomu aadama de faatu nañ ci Idrissa Seck bu ñuy wax Abdoulaye Seck fañ koo teg loxo ci wàllu trafiqué drogue bu bon bii ba tax teg nañ ko loxo keneen ku ñu teg loxo mooy Lac de Guerre 2 mbër sunu làmb yéene kaay na talaata ba léegi mu nga ca loxoy takk der ya fa fanaan ndax fañ ko teg loxo ci wàllu tappale visa ak yeneen yi ni mel l'observateur na Lac de Guerre 2 kay fi mu toll ne na xam na combat yu mag yu mu a bëree te boo moytul fa ci daanu de ndax fukki plainte ak juróom lañ ko tegee loxo ndax moom Lac de Guerre 2 fa ñoo fa jiite ab réseau ne fa daan yóbbu ay sénégalais bitim réew ci xanam gu jaarut yoon koy def yéen a kaay ne kim ànd ak nag ci tappale gu garaaw googu moom fa daw ba léegi ñu ngi koy wër gisuñ ko la mu gis ba wax ñu ko moom l'observateur mooy soxna yi nga xam ne fa ñuy teel a ménopause maanaam teel a ñàkk mën a xam doom ñoom it coono bu métti lañ nekkee ayaw seetal kenn ca ñoom fa wax ne man daal faa toog gis na fi mu toll mënatumaa xam doom te booba xale la moo tax faa demoon ba dof carrément mel ni ku manqué sama àdduna bi yëpp fa jaxasoo woon waa ma ne ñàkk mën a xam doom moo xam nga doon xam doom ba mu yàgg mënatoo xam doom mooy ménopause wala góor gu doon xam doom dem ba yàgg moom it mënatut a ak ñoo xam ne mosuñoo am doom loolu yëpp ku dal nga xam ne ndogalu yàlla la rek fa nga koy muñ donte fa métti nag waaye ñàkk mën a am doom moo gën dee de